te nag maa ngi leen di gërëm yéen nga xam ni gisuleen ma diir bu yàgg te taxul ngeen dem taxul ngeen wax dara waaye loolu kooku mooy militant PDS mooy militant ou militante libéral parce que dañu nekk ñoo xam ne dañu xam li ñu bëgg ak circonstance bi mu mën a demee xam nañu li ñu bëgg te itam xam nañu moom bu baax xamee boo xam ne bu ñu mëngi julee wala danañu ni Ablaye le président ci suñu liggéey la nekk loolu dëgg la ci seen liggéey la nekkoon waaye nag comme léegi élection yi ñëw na pare campagne bi ñu ngi koy tëj tey guddi à minuit léegi laa egsi ci jamono bi ci élection dafa compliqué ndax euh, parti yaa ngi ci am na ñoo xam ne amuñu parti am na ñoo xam ne parti yu ànd ñun nag ànd nañu sax ak parti pour def le front Wallu Sénégal waaye tamit ñëpp xam na ni maa jiite liste boobu kon nag mi ngi mi ngi mel na que liste PDS te noonu ngeen ko war a jàppe voté liste boobu comme liste PDS pour mu gagné dinaa leen baalu nag ndax tardement euh, bi waaye à la daal ma ne fii laa koy bàyyi yëpp pour ñëw ndax élection yi waxtaan ak yéen tuuti ma di leen gërëm yéen ñi nga xam ni malgré tout débrouillé ngeen ba ñëw xaar ma ci kër gi fii ci collège euh, ñi ci des ñu nga moytu yéen ñëpp ma di leen bokk di leen baalu baalu wax politique moom amatul dara lu ma leen ci jàngal xam ngeen ni metti na mën nga ci am lu neex mën nga ci am lu waaye yàlla dimbali ñun ba nga xam ne ni li ñu ci am kenn amu ko li ñu am ci politique Sénégal kenn amu kon nag am lu mu mën a toll kontaan suñu ngi ci yërëm yàlla suñu borom ma bëggoon euh, profité ci occasion bi Euh, wax ji lu mu néew néew ma wax ji sama wax sama ma di leen ñaan yéen ñi ngeen xam ni da ngeen meroon ba dem ci beneen parti wala beneen coalition na ngeen teg lépp si ngeen jëlu si seen parti yéen ñi nga xam ni meroon ngeen waaye demu leen waaye wone du leen seen ndax la ci parti ndax da ngeen na ñeen ñii nañ naan waaw borom parti bi ñu ko jiitu gisuñu ko léegi maa ngi wax naa nekk lu tax ma tardma ñëw yàlla maa ngi koy gërëm ndax la ma mënoon la ma daataan jóge fii ba tey naa ko kon daanaka may ñaan yàlla sunu borom mu dimbalelu ba élection député yi ñu gañe ko ñu ëppale parce que assemblée ku fa ëppale rek yaay pouvoir yaay wote loi yi gouvernement bi kooku am am nañ ci yaakaar lool kon bu fekkee ne yéen ñëpp déggeen seen ma wax sama wax ku meroon nga meri ba lii wéy nga ñëw ñu toog waxtaan balaa booba sax boo ñëwee ma recevoir ak koo mën ci parti bi ak loo amoon ci problème ak boo bëggee ma waxtaan ci ak yow euh, nga woo sama état major mu woo Mamadou moo di joué sama rôle de tërëxa bi su ko defee ma recevoir la nga ñëw di waxtaan mais wax ma seen xalaat li baax ci mbir mi ak li ci bon yëpp waaye bu amee loo xam ne lii nag dafa jafe bon ñu sàmm ko ba ba ba beneen ba yi passé maanaam ba mu def nag woote président de la République man dootuma nekk candidat président de la république bëggatuma sax même bu ma ko yàlla mayal ma am capacité ma am capacité bëggatuma nekk président de la république ñoo doon def ci titre président de la république yaakaar naa ne def naa ko Sénégal yi gis nañu ko ku nekk am nga loo ci xalaat deseel deseel duma leen dara maintenant ci sunu biir la ma noonu waxante lii ñu defoon def nii bu ñu defoon ñi mooy gën tout ça c'est possible pour ñi nga xam ne dañuy ñëw après man président bii ñëw wala président yii ñëw ñu mën a profité ci loolu éviter su fekkente ni dafa def erreur ñu fexe ba loolu erreur boobu la dootul am ma di leen xamal ni rek su defoon jox ñu majorité ci assemblée bi ba nga xamee ni ba nga xam ni gouvernement bi ñoo koy contrôlé pouvoir bi ñoo ko yor te damaa bëggoon ki nga xam ne mooy président de la république tey muy Macky Sall ak ki koy nekk en deux mille vingt quatre ma xamal leen ni man d'accord naa am naa volonté pour jàppale leen pour dimbale leen dimbale Sénégal même buy jaar ci ñoom parce que am na liggéey yu ma liggéey dégg a Sénégal yi kontaan nañu ci waaye am na lu des bind naa ci benn téere sax boo xam ni dama cee def lii bokkoon na ci sama sama yitte waaye jotuma ko liggéey jotuma ko yeggale kon nag président bu ñëw li baax ci réew moo di loo fekk ñu di ko liggéey ci lu baax nga yeggale ko man nag ku yeggale sama projet ñi nga xam ne dañuy présenté contre suñu liste daal ñuy lii moom amul morom simplement parce que da ngaa xiif nga fexe ba bañ a xiif nga fexe ba bañ a yàkkamti pour que su liggéey ñu seet ko baax seet ni muy profité Sénégal ni muy profité Afrique ni mu gën a profité ma xamal samay militant samay soppe samay àndandoo que liste bi nga xam ne moom laa jiite di ko woote mooy wollu ma di leen ñaan nag yéen ñëpp ngeen mobiliser dem woote ji wallu ak Yewwi ñaari parti yooyu dañoo ànd nekk benn